asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku téléspectateurs yi baaxoo di suivre la chaîne des valeurs Mourchid TV dal leen ak jàmm yéen internautes yi ñuy suivre partout dans le monde fu waay mën a nekk rek fekk na la fa tàllala samay ñaari loxo di la ñaanal jàmm dellu siwaat nañu nag ci waxtaan bi ñuy seq ak kenn bu gul bu cheikh sayid mohamdinil mustapha si al maktum doomi borom bàmmeel bi tey jii nag dañu génnaat ñëwaat ci àll bi sunu jotaay bi nu weesu wax na leen lu sabab mu xëy rek euh, génn ci àll bi te itam noonee lañ ko fas yéene defewaat insha allah waaye tey laata ñoo xuus ci gàncax gi daañu waxtaane ñi nga xam ni dañu génn réew mi ne ci yeneen ni réew ngir daan seen doole yan jafe-jafe la ñuy faral di jànkonteel ak ndaka la ci kenn bëggul bu Serigne mustapha si di sàkke pexé kon nak Serigne bi man nuyu la nga nuyoog askan wi ñu jublu ci waxtaan wi. sang bi ma ngi lay nuyu di la ziarra di la ñaanal ngonu jàmm euh, ci kàttanu suma borom jërëjëf. jërëjëf may itam ma ngi lay ñaanal jàmm ju sax dàkk serigne bi ni ma ko waxee ci benu émission bi tay dañu fas waxtane ñi nga xamni dañu genn rew mi nek ci yeneeni rew ngir daan seen doole taxawu seeni njaboot comme ni ko benn artiste waxe bëgg na fondé famille bu modul amel ak comme ñaan naamu ami comme la wara laq comme gogu mo waral ñu bari genn réew mi dem daani sen doole ci yeneen réew waaye ko nañ ci ñom ñu te bare bari dañuy faral di jànkonteeg ay jafé jafé ñi ngay liggéeyal ci diaspora bi kenn xamul lu ñu tollu te ñu ci bare bari ay jafé jafé yu tar lañu nekké ndax mën nañu xam ñom yan problème lañuy faral di jankontel wa bari na ay yobonté nak yu ma jot am ay mbokk yi may laaj ak di ñaan di wax ne mbir bi nga xamne ne ñi yalla nattu ñu tukki te seeni wajur u seeni xarit dajale seeni deureum deureum fexé bañ jéggi ndox dem mais yalla day def buñ xasse dem ba ag ci fan yu neew sax seen mbir mëna ubbeku mais ab diir rek leppay taxaw wala soit que yàlla nattu leen bu ñu xasee génn xaw ma kan waaye ñoom duggaat réewu Sénégal ma du amati ñii yàlla nattu leen buñ commencé liggéey ba commencé tabax laal suuf dara rek lépp taxaw tabax moom du àggati fa li ñuy doxee def kat afi ba faw ñi yàlla nattoo leen buñ xasee jàng ba àgg fenn fi ban xasee jéggi dem bitim réew pour àggale seen njàng concours bu ñëw di jàllati examen bu ñëw dee échec duñ comprendre yan mooy waral li yëpp di taxaw ñu jàppee ko yàlla suñu borom rek xam luñ laaj rek tontu si kàttan suñu borom. jërëjëf kon nag mbokk téléspectateurs yeeg internautes yi xam ngeen ni waxtaanu tey bi fas na yéene riche lool te itam dina leen soxal. sëriñ bi lim nga fi yu baree bari waaye xanaa rek ma njëkk a jël. ki nga xamni dafa dajale as tutam jënd terrain ngir fas ko yene tabax waye mu ci jankontel ay problème yu tar lol ba sax fay mujj reccu lan motax mu ci dugal xalisam ndax man nañ xam yoyu yan mo kay waral wa xam nga ki tukki berap? Pur jënd bërepp pour tabax ko mais parfois bari na souf yo xamni sufi nit ñi danañ ko jënd fekk souf yi dañu am borom muy ña nga fa doon nek te gisoo leen wala yëgoo leen bés boo xëyee xëy bés ñëw samp say birig def sa fondation te bàyyi woo xel ñooñu ñoomi it dañuy gis seen bopp ñoom duñ bouleversé kiy tabax walla entrepreneur bi mais candidature ba ca kaw dañu boraki nekk bala nga laal suuf si am na suñu àq ñun ba pare mooy waral parfois nit samp kër ay nit nekk fa jàmm dafa judd parfois nit samp kër ay nit nekk fa coow guddi coow bëccëg wala feebar yu dul jeex ñaan rab la saytaane la ngelaw la wala parfois nit samp kër sax chaque jour kër yi tàkk ta ñun xam lan la te yii yëpp nag day fekk kër gi am borom te bàyyi wuloo ko xel yooyu nag parfois bu amee blocage mën na deñ waaye ci kattanu suñu borom mais yi koy def loolu daf ci bokk mais bàyyil xel ne yii yëpp nag sarax mën na koo fànq sangat mën na koo sowe te kenn du ci loru ci kàttanu suñu borom bëri na tamit li koy defaat beneen côté mooy nga xas a jéggi ndox wala nga xase a tukki commencé tabax mbir mun a tekk parfois dana nekk loo xam ne du nekk suuf moo am blocage mais kii xolam féexut te yéenewu la nga teg birig saabu bu birig juddoo mu ne du ñaaraat xaw ma kat mais doo ko àggale mais bëri na sànce yu bëri fii taxaw li ko téye lépp nit la waaw li ko téye pexe nit la dem de sànce ba tibb suuf yóbbu boole ko suufu armeli boole ko sàngam ak sàngam xapp ko ci kaw mbalit kii ñëw sax di daan dooleem te dara indiwu ko fi ñaata nit am santé yéeg ci kaw sànce daanu fa dee wala nit dem ba ci kaw sànce am fa malaise daanu dugg ci bàmmeel yi koy xewee ay pexe la yii seytaane koy def yii nitu koy def moo tax bala ngay def dara faaw nga def fa dara xaayaan ku dégg séeréer. jërëjëf xaayaan ku dégg séeréer balaa ngay def dara faaw nga def dara loole ay wolof la yu leer. waaye sëriñ bi ki jànkonteeg problème yooyu ndax mën nga koo saafara ak nan lay def ba mu jotee ci yow. gis nga même bu doon kër goo xam ne sax chaque jour mu xëy tàkk suuf dong mën naa la kaa jox nga def ko fa takk fa lay dakkee ba faw yooyu duma ma la sax jox garab suuf rek laa lay jox na la gasal nga utal suufu géej nga jaxase ko moom seetlu nga benn affaire signal est gis nga rabu àll ba koy lekk. gaynde li muy ay du lekk si ñun mukk dama nga def ci gëstu bu baax dégg signal yi dong la ñuy jël boole ko sàngam ak sàngam ak yin koy mooñaaleeg nga saaf ko bam mu ñuul kukk ñu wax la ñu ngi koy def soo ko xasee def ci bërëb foofu nay rab nay dëmm nay sayaatin kenn du fa duggati même bu doon kër guy tàkk fa yem même bu doon kër goo xam ne nit dafay daanu kiris fa lay yem ñaata na ci dugg ci tuwaale daanu ñaata na ci daanu ay crise ci biir kër te buñ génnee tane c'est-à-dire faaw ñu bàyyi xel ne kër yi dañoo am borom te léegi jaaykatu terrain yi wala jaaykatu suuf yi fu la nekk xotti jaay mais yow mi jënd tamit amal fayda soo xasee jënd ba noppi la fi maam yi bawoon delloo ko fa lu ma la wax rek am naa ci solution ci kàttanu suma borom nag xaayan ku dégg séeréer jërëjëf kon nak xaayaan ku dégg séeréer waaye sëriñ bi dégg naa ci sa biir wax sànq nga wax beneen jafe-jafe bu nga xam ni bëri na lool ci jamono bii ñu koy dund mooy ku nga xam ni dafa génn réew mi ngir daani dooleem dem fa falang ay mbokkam sax mënatuñu xam fan la ko jant bi di tiim ah, sëriñ bi loolu lan moo koy waral ak itam ndax am nga ci pexe. waaw xam nga nawtal mooy def loolu mais ñan ñooy def nawtal mooy ki yàlla natt xolum feexut. sama dom njëkk dem sa dom, xawma kan wayo do delu ci du fi jeex nawtal ku koy def ki fi ba soxna bu mu nop japp na maa ngi dem maa ngi ñëwaat ki xelam nek ci benen soxna bi te xamna tank ki mi ngi samp candidature mom kenn du ko fotel de wut solution nawtal do ñëwaat ak yeneen ak yeneen mais waral nit génn xelam sax génn ci ndeyam ak bayam nit génn ku ne di am yaakaar ci moom xelam sax fàtte ay xaritam ak ñëppam dem ba fàtte réewam parfois yàlla nattu ko xelam ci for lay dox bois de nuit di la romb sàngara di la romb yeneen yeneen di la romb mais yii yëpp nag jàppee ko ci natt suñu borom la waaye yàlla am natt bu mu teg nit rek yàlla mën na ko teg li waaye parfois na yi pexe di def lañ war a xeex ngir mu jog fi ndax yéen ñi nag sëriñ kañaan lay nuru kaw ma soxoor lay nuru ndax ki yàlla nattu mu dajale ay dërëm ma ba jéggi dem tukki wala mu jaar ci gaale ba àgg ay waajuram di am ci moom yaakaar nga naaw naawtal ko ne ko doo fi ñëwaat wala parfois sax ni dem ba àgg ñi nga xiirtal ko mu jigee ci réew dem ci beneen réew bu xasee àgg ne la waa man lan moom indi fii te xamul sax li xew ndeysaan te yii yëpp li koy def nag mooy nit bu fàtte ñaan cest à dafa war a të nit dafa war a bàyyi xel boppam jamono bi ñu toll nit ñi dara ñaa la ñi nekk Sénégal ñoo ëpp jàmm ñu nekk ñi jéggi bitim réew parce que fii buñ la dumaa mën ngaa laqarte ko génn ci mais fële buñ reqee sa ndigg doo gaaw génn ci même boo liggéey garab pour yónnee ko balaa mooy àgg minimum dana def une semaine kon lan mooy sa solution mooy en distance rek sarax génn la ci mais bàyyi lax ne kin jéngi saba ba dox sarax mën na ko sooy mu génn ci sëriñ ko xamul pouvoir sarax la ñuy wax mais sarax lu munul amul mais ki yàlla nattu ñu naawtal ko mu dem ñaata pitax nga gis yoo xam ne tey boo leen tekkee tek fa ay téere sen baat ñaata picc yoo xam ne boo leen tekkee seen fa ay téere seen baat yi ñaata tan yoo xam ne buñ leen mbaalee gis ay téere seen baat yi ñaata dàllu jaamur yu réer ku leen jël laaj la rek ah ñaata dàllu jaamur yu réer ku leen jël ñaata jaaru jaamur yu réer ku leen jël ñaata yére jaamur yu réer ku leen jël ak yeneen ak yeneen ba ci sax boolu ajukaay bi ngay lekke ko xamul rek xamul serigne bi koy bo tay mystique dafa doy war mystique dafa am te lo xep mu éliminer la mais yi yeb bu amé nak solution amna ci suma afidu min aish afadu nas yalla ñuko jox way ki ñu rek ndiggam ba mu genn dem xëccël mu ñëwaat mais kan ma wara wotal ki nañ ko mais yow mi war a wootal kan nga a sayf mi ngi fi a latif mi fi mais ban la ci latif mën na fàqat nga ñëw mais kii ñëw ñaar rek condition na nit ñëw yaa xam koor mooy ñëw yaa xam néew mooy ñëw mais nit moom dina ñëw kii ñëw te indiwul bakkan amul la njariñ kii ñëw te ànd ko xel amul la njariñ fexeel ba kiy ñëw même bu ànd ko tax xelam na jëmm dellu si boobaa yi ci kawam dindi ko du compliqué mais sëriñ bi da ngay gis koo xam ne dana la wax ne la man de dama génn mais yëg naa sama yaram loo xam ne bokku ci woon mais def na analyse fu ne aw ma benn résultat te bun la facturé ticket consultation nga ne dafa cher sa affaire la te ko wiiri wiiri jaari ndaari kay jaari ndaari benn yoon rek moo tax yow mu yàlla natto yii arrivé la jàppal na solution am na ci waaye ci kàttanu suma waroom nag waaye yow mi wootal bala ngay wootal nit ki xamal ki ngay wootal kan la ba noppi parce que ki ngay wootal dana laaj ndax mi ngi dund wala dund dafa réer wala réerul boo seetee sa conscience li mu lay jox war nga xam bu nekkee kiy dund xam nga kii mi ngi dund bu dundul xam nga ne dundul bu milieu bi lëndëmee xam nga ne kii fi nekk dafa lëndëm bul jox nit ki yaakaar naan ko defal li nga war roog sa diggante sa borom rek li gën bàyyi ko yàlla suñu borom mu def ko xaayaan ku dégg séeréer. jërëjëf kon nag xaayaan ku dégg séeréer bokku téléspectateurs yi suivre la chaîne des valeurs mourchid tv ñi ngi fi ci all bi di waxtaan ak ken bunkul bu cheikh mohammed mohamedinil mustafa ci al maktoum tay mu jël ñi nga xamni dañu genn réew mi nekk ci yi réew fas yéene daan seen doole ngir indil seen jabot yan jafe-jafe li ñuy faral di jànkonteel ak itam yan moo ciy solution ken bugul wax na ni bépp jafe-jafe bu ci mën a am rek ci kàttanu sunu borom moom am na ci saafara kon nak li ci dess ci yeen la jërëjëf sëriñ bi tudd nga nag tomb yu bare bare xam naa ni du xaj ci waxtaanu tey bi dama koy leb rek ba beneen yoon ma ñëw ci ñaareelu tomb bi ñi ngi ci àll bi faaw rek ñu jël genn gàncax waxtaane ko yaa ngi tiim garab gu ñuy wax santan moom lan mooy cosaanam ci garab yi ak itam luy njariñam santan garab la boo xam ne garab bu doy waar la waaye moom it garab la yi nga xam ne dañu am cosaan dañu am góor dañu am jigéen dina am xob dina am ren dina am xas waaye man bi ëpp li may jëfandikoo xob bi dong lay nekk renam duma ko laal en même temps dina am tobb nag dina am tamit bulli maanaam ci biir garab bi am na beneen façon garab bii ñu ci génn nii xam nga ñaar yi bokkuñu sa benn garab bi la ci lan la non non garabu santaan bi la ñaari xob yi bokkuñu xob bi dañ ko sponsor ak fam suufi manakiba wa kulluhum min rasqi ambaalu rek mooy alalam alal rek mooy liggéeyam moom doxul ci xeex doxul ci dara moom la ñu soxee jaaru yi ak sàngam ak sàngam wala lam yi coton bu tooy bi lay àndal yaa xam nag lañ koy jënde Ya xam bes bi ngay jënd mais koku mom c'est inconnu du lumay wax ndax suma yëfi bop la bu dé xob bi fay dox ci art da fay dox ci walu ubbi képp ko dégg ñu dañ ko tak wala korte sonal ko santa mo ci gëna a gaaw paftan mënu ko ci dara ci moom moo ëpp doole ci ko boo sax pastor mais même mom so xolé menam amut men buy gaañ nit gis nga ko amun men bi gañ nit mo tax nga man ko naan te def dara way jigen bu ëmbé ba xass am juroom ñaari wër nak suñu ko da fay tax xale bi deugër bop da faaw nit ñi xami waat ba légui am nga waxoon na la fa leen la xoss ak mbante mara am na ko momul waye bo xasse ba ag fenn fi am na garab yo moomatul fofu la yar sa bir di dagane ba tey ba du lu nek nga wara a parce que ki ci bir amna lu koy jarign amna lu koy gaaj mais nim amé ci garabu ordonnance la amé ci garab bi mais kon nga faaw nga ràññee yi yëpp amna ci bir nak 100 ans bo ci laaj rek danañ ci tontu ci kàttanu sama borom xayen ku dégg séeréer jërëjëf xayan ko dégg séréer kon nak ma tambalé ci reen bi ndax gannaaw euh, moy nday ji euh, lan moy ay njëriñam 100 ans reen bi amna doole lol waye ci walu ñan góor ñi yàlla nattu xuuxaan yomb la ci ñoom xuuxaan xuuxaan mooy ñaari cheikh yooyu di nekk ci suuf sakara renu cent ans kenn ëpp ko ci pouvoir mais booba moom ak renu njàndam ne at ak renu matt kéwal mattu kéwal bi moom la wax mattum kéwal renu cent ans renu njàndam ñoom ñeent ñooy ànd ñett mais ñoom ñett yëpp nag guba dugub nga leen jënd ji bés ba ak ba nag sama domaine bopp la waaye fu mu ko fekk sàkk ci pexe ci kàttanu suñu borom soo ba laalu sax nga koy boole dara waaye ba tey amaan na beneen côté moom ren bi soo ko boole ak renu paftan xasum sump ak renu yiir bi doon ut sànq fee beneen facette lay joué ci jaaykat bi ne ci biir marché gisoo ci biir jaaykat yi parfois nga gis ci ñoom ñoo xam ne fi ñuy placé dafay placé waaye ku ñëw romb leen jàll dem wërsëg day tag xam nga loolu xam naa ne garab bi boo sànnee bant mën na cay tag mais parfois am na bant yoon boo ko sànnee du ci tag day wàccaat noonu la wërsëg di tagee wërsëg bu tagee dañ koy ajji mu wàcc sarax mooy solution so bayyi yir bi ngay jëli ak mom mi boole ko sumpu bi seeni ndab ni yalla nattu xam nga am ño xam dañ lan dañ leen kar am ño xam ne seen wërsëg dañ koy kar lan moy kar manam ni yalla nattu seen mbir yeb teunku ci yaakaar bu tass manam lo jubbo yaakaar ne mom la du jall lañu firé kar parce que li wara ñew amna am pour ñew mais lan moko détourner la kenn xamul loolu du nekk nit shayatin mooy def loolu suba ñoom dañoo seen i ndab spécial yu ñuy def ci biir place yoo xam ne ci kàttanu suñu borom kenn mënul détourner sa wërsëg faaw mu agsi te yiir bi santan bi xasum sump bi mooy seen ndab booba am na tomb bi muy ànd ak nag ak sàngam ak sàngam ndabee soo koy laal pour walu katu marché dong ko taxajuk faaw mbiri marché ci kattan suñu borom way nak yaay boy du lamay jamu de ay wax day leer de xayan ko deg sereer nak jërëjëf xayan ko deg sereer mbokk téléspectateurs yi garab gi ken bugul tim moy euh, santan mi ngi ci waxtane wax na njariñ li nga xamni ni la reen bi amé euh, xana rek serigne bi ma jël xob bi moom ndax bari na njariñ xob bi xamu neena la man mo upp ci limay liggey waaye man su ma koy jëndee ñaari façon laa koy jëndee yàpp dëj xoolitu gerte du nekk dafee gerte xott xoolitu gerte bi laay soxla xoolitu gerte ki leen tax a jóg mooy fu korte nekk yara mu nit ñu dagg mu dañ lu xaatim sori sori ci yow bu ñëwee delloo ko ci borom mu dem mu ne du ñëpp la ñuy dugal ci xaatim du ñëpp la ñuy liggéey du ñëpp la ñu jàpp du ñëpp la ñu téye seen i baat wax déedéet malgré loo ne yàlla du ko seetaan seetaan na lu ko raw waaye yàlla tamit am na ñu mu seen bopp ba nopp nag jël sart 10 pour cent yi bàyyi yow jàmm bi nga def sa nuru ay tifil avaax yi des moom mission mooy fu mu fekk takk wala korte korte day dañ yaa xam lu fitis def yaa xam kun sox ci béjjën yaa xam kun xotti xawaatim dugal la ci yaa xam kun gas suul yaa xam kun daj guy yaa xam kuñ takk sëf ci kaw lal moom du duma tegi suuf day duma delloo ci borom ah mais soo demee dafa am saraxam saraxam lan la ginaaru ndereng am na ginaar yoo seen baar yi am kawar mooy delloo mbattu ma ca ndaala parce que dóor fayu al بين حري ولا حبد بعبد خاين كو دغ سيرر دور فايو افام غرب يوم سين ميزون اموني مسلا مورا ندابام سوكو لالي سوخي ملني كون سومي اوف أيوة، تايو غاي ديف واي بري وون نك لي ماكا جوخ نيت بارفو ارا دينا خول ديبانس ما جيلتي نياري تاك تيكو تي كاو نداب بي بور ريك بوازون بي خاوا سافتي ناخ ياكار دا فاي فور waaye sa bu ma la bëggee yóbbu ci neuf takki rek xamal ne ponkal dee na xam nañ lool même bureau sac faram fàcce bul gisee neuf takk duggu fa da xam na ne ponkal dee xam na ne ndab bi du ay ndabu 300 cent ki quatre yi dedet bidde ya ngay fay bu dul lool doo ko laal ci man mukk parce que limi muy laaj ya pour ma génne ci sarax yépp ak limi muy laaj ya ma def ko ci dul yomb sëriñ bi lu baax du yomb ndax so bëggé lu yomb demal seeti sama jaay ak Mar mbay ayen ko dégg séeréer machallah allah xayaan deg dégg séeréer sëriñ bi sank ci sa biir yi wax deg na la nga tudd ñaar tobb ak bulli eh, ndax man nga ñu ci ñëwal ci ay leral ak yan moy seen ndariñ tobb amna bulli amna bulli moy jitu tobb soko judd bulli moy li mom lañu soxé lambi ak jaaru yi en même temps mom liggéeyé bagage examen wa rafaxnaa laka sàngam ak sàngam waaw ra fa ayun liif gu dog kaaf del di tooy kaaf ra kaaf googu doo ko jël wa rafaxnaa laka zikraka bi kaaf googu ngay téye boole ko sàngam ak def ko ci big jox nit mu songu ci bu dee examen dong bu ci yàlla dafay wërsëgam kenn mënu ko ko xañ ak bu mu mën a nekk nag bu dee wàllu permis tamit noonu lay demee moom mbiru këyit rek lay dox waaye big boobu buñ la ko joxee à part yow kenn du ko bindati beneen phase am bi mooy lamb yi ñuy sox wala li jëm ci xaalisu jaaru wala ndomba bayra yi ñuy liggéey xam nee naa la fële dafa am bayra yoo xam ne dafa jox ni tur ak succès parfois mu fàqat parfois du fàqat waye amna ndab yo xamne do yekki yëkkati sa tour te faaw ngay encaissé bee yu mag so ba xob bi du bokati bulli bi rek moy dem mom ngay takke ji garab bële wala nga takko apart bo part ndab bi ba noppi ci tuuti somp ci sànni ci amna benen garab yo wax lawa moy garab yo nga xamne manam loy looy liggéey bëgg mu barkeel def ko ci bo ci xasse raxasu ba noppi tibb garab gi moñ sànni ci lo ci lag lo ci lamb du mars mu mars ci kattan suma borom kon bulli bi mom ci walu alal rek lay dox ak lepp lu jëm ci walu kayit pour nit soxla mu jàppandal parfois dina dox ci benen facette mo ñu yalla natto xatu gémmiñ di len sonal su baba mom ngay jëfëndiko xob bi boole ko cox cox bi génne ci dugub <laughs> fu fek xatu xetu fa lay yem waye su baba bayil xel ne deret bu dee bi lay génne mais sëpp lëkk bënd nga ci biir parce que ñii am xeetu gémmin mbir bi nekku ci bañ ci ci ci deret bu dee bi ci biir la nekk ñaari daje te waruñu daje fit bi am mooy génn aération bi génn xaayaan ku dégg séeréer. jërëjëf xaayaan ku dégg séeréer macha allah xam-xam bi nga am ci gàncax moom damay wax ni la tewul ndax itam saa yu ñu la dégloo rek nga indi ci xam-xam bu bees tàq. Euh, sëriñ bi santaa moom ndax am na doom. Santa, ans du bëri doom hmm, bu mag mag mag bi dina am domi ndaw du bëri doom mais tobbam fay am tobbam amna Santa, doole lool tobb bu cent ans olom Ni pour ala dong leen taxajuk santa nger olom Ala rek leen ndab yoy ñum la la wax la bu nit ki xasee pare première partie ba deuxième partie la am droit àgg fa mais tant que weesuwoo ñaari amoo droit àgg fa ñoom doxuñ ci wàllu ay aar ay non ñoom ubbi rek mooy seen mission maanaam lu tëju ñu na fi jóg mais ba tey beneen côté am na am na saabu bi ñuy wax saabu gana yi waaw ah. moo xobu santan bi kese man ngi ci liggéey ubbi du taxaw saabu bi dong la la wax su boobaa da nga koy dagg-dagg yu sew boole ko xob yi bu nekk am na tomb boo ci bind tob xob bi laa wax xob bi xob bi da nga dem bind ci liif laam xalkubéer liif kaaf liif gu dog ñetti tomb ra alxaakumu takasuru boo paree maas ko maas ko sukkoon boole ko sàngam <laughs> bu dee ubbi dong il est meilleur ci kàttanu suñu borom waaye toujours ma wax la ndam nekkul ci loxo kenn bëggul ci loxo yàlla sama borom la nekk bés dafay ñëw damay échoué waxtu dafay ñëw damay échoué waaye bu dee guddi yi ak waxtu yi bilaay bindi leen ba sonn maas leen ba sonn xaayan ko dégg séeréer jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre ci la chaîne des valeurs TV ak yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy bàyyi xel ci internet bi liñ ñu cëral ci waxtu day daanaka jeex na tàkk baaxoon nañu ci jeexitalu émission yi ñuy ñëw ci tolluwaayu réew mi waaye tey nag dama leen di jàll suñu wéjur wi nga xam ni moo génn àdduna tey ci àjjuma ji di Lamine Diack doonoon kilifa ci réew mi ci wàllu sport ak wàllu politique moo génn àdduna tey jii ci àjjuma ji ñu ngi leen koy jàll di ñaan yàlla mu xaari ko aljanna beneen jafe-jafe itam ku ne xam na ni ñetti fan yi dem bi ak dikk bi yombul lool li ko waral moo di ñu seq transport bu Sénégal ñoo bank seeni yoxo ndax daal dafa bari lool yuñ ciy naqarlu di wax ni ngóor gi daf leen ci seetaan lool bëgg ku ca indi saafara moo tax ñu ni dañuy fay seeni oto bank seeni yoxo di ci déglu état bi ba xam saafara dana ci amam ndéet ñàkkul ni sunu émission yi di ñëw kenn bëggul bu mu Moustapha Sy dina ci waxtaan indi ci ay xalaatam kon nag mbokk téléspectateurs yi li ñu war a wax day ba léegi jeexul waaye waxtu waa jeex xanaa rek sëriñ bi nga tàggoog askan wi ba beneen. waaw bàkk tey sargal rek Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di ñaan yàlla suma boroom yàlla dundal ko junni at ku mu am yàlla na raw ku mu am yàlla na mucc wa ma salik ala laahi bi azisin wa salaamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant sama mbokk bopp bi kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaw maa ngi ciy waxtaan ak maam Cheikh démb ndax daf ma wax wax bu doy waar moom kenn bëggul mu ne man dama defe ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ Moustapha motax ñuy set jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ma ci sa hadra mune ma te tiitaruwu ma yàlla moma bolé ak yow mune ma te ken manu ci dara nak wa tabaraka lu mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp waaye ma gis bi ñuy sant ñépp ñu xaw ko mu jël mel ni dafa am luñ ko xaw mere ma bëgg ngeen bàyyil ma fi kenn bëggul ngeen xamul ci lu mu nekkit ngeen may ma man ma xam ci lu mu nekk ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul gis nga gàmmu gii daf ma waxoon ni ma du ñëw ma war nag dinaa ko def waaye bëgguma ñëw ma ni ko lu tax mu ni ma dafa mel ni dafa am ñu nga xam ni man sama présence daf leen di gêner ma ni ko ñooñu ñoo tax ngay ñëw walla man mu ne ma yaa tax may ñëw man ko kon ñëwal et puis ma waxtaan ci capitaine mii ni ko nga waxal ma njaboot yi ñu bàyyil ma ko xel